ñoo ngi leen di ñaan ngeen abonné lu jiitu ngeen di seetaan vidéo bi ngeen bës cloche de notification bi pour ngeen mën a jot vidéo yi jamono bu wàccee. noonu la ñu yóbboo sëriñ bi Mayomba mu am fa ñaari at diirub ñaari at yooyu nag ñu tumurànkel ko fa lool moom sëriñ bi ma Mayomba googu am na benn tubaab bu soxor bu ne ci moom bàyyi leen maag moom comme yéen mënu leen ci moom dara man dinaa ko lijjanti daal di jël sëriñ bi boole ko sàmbalaw bi dugal leen ci genn gaal yóbbu leen ba ci benn île boo xam ne ndox kese moo fa nekk amoo fenn foo mën a jaar ngir ñëw mu sànni leen ca île boobu ba noppi daal di dem île boobu nag wax nañ ne wiir wiir la tudd bërëb la boo xam ne ma nga nekk ca ba waaye bërëb la boo xam ne ndox kese moo ko wër maanaam benn montagne la boo xam ne ndox kese moo ko wër ay jinne ak i rab nekk fa ak i seytaane yenn waxtu yi dañuy génn képp ku fa nekk ñu lor la la ko jiitu woon yëbbu woon nañ fa ay nit ñu baax ay jëmm yoo xam ne foofu lañ leen sànkee ci bërëb boobu di wiir wiir sëriñ bi nag moo sàmbalaw bi leen jëlee ndoor ca jolof ndax ñoo bokk benn atte bu tubaab bi teg seen kaw waaye sëriñ bi ak sàmbalaw bi dajewuñu ci benn bërëb diiru tubaab bi di ànd ak sëriñ bi dañuy jiwaatloo ba ñu yóbboo sëriñ bi fii yóbbu sàmba fa ca des waaye ci wiir wiir googu fa sëriñ bi ak sàmbalaw bi dajee sëriñ bi julli na fa ñaari ràkk yoo xam ne diirub ñaari waxtu ci la ko jullee mu nekk ñaari ràkk yu gudd lool wax nañ ne sëriñ bi dajale na yax yi nit ya fa nekkoon te faatu woon te jinne yi ak rab ya fa nekkoon sàkkal leen pexe sëriñ bi jullee yax yi jullit ya fa nekk ba noppi ñaanal leen ak texe loolu nag nekk misaalum mission bu sëriñ bi war a dox foofu ca wiir wiir naam tubaab bi dañ ko yóbbu woon ngir sànq ji ko waaye mission boobu la waroon dox dox ci bërëb boobu di wiir wiir bi sëriñ bi jullee ba sëlmal daal di gestu gis sàmbaloo bi ci ginnaawam sëriñ bi daal di ree bi mu ree nag Samba daal di ne ree bërëb bu mel nii ana noo fi mën a nekkee di ree ndax boobu Samba Laobé ngi tiit lool di pat pati yaakaar ne ay minutes yu néew ñoo ko desee ngir mu faatu ndax nu bërëb bi doyee waar ak nu mu ragloo waaye sëriñ bi bi Samba waxee loolu sëriñ bi tontu ko ne ko li may ree de mbir mu yéeme la ndax dama xam ne ba may nekk jolof man ak yow nga nekk kilifa ca jolof nga ne ma suuf si man ak yow xajuñu ci suuf si mënuñoo bokk suuf si tey jii nag ñu nar bokk sama sijaada bii Samba Laobé ne ko déet sëriñ bi bul xalaat mukk loolu bu ko fàttaliku wax jooju kay bàyyi ko bu ko xalaat mukk te nga jéggal ma rek fu mu toll fu mu toll nii kay bul fàttaliku loolu benn yoon Samba dal di réccu wax jooju bu baax a baax ànd ak tiit ak ragal ak itamit yaakaar sëriñ bi jàppale ko noonu itam sëriñ bi daal di dajale ko bagage yëpp ne ko Samba dajaleel bagage yi nga teg ko sama kanam Samba Lobé dajale bagage yëpp daal di koy teg ci kanamu sigaara gi sëriñ bi daal di bóof ci bagage yi ba noppi ne ko Samba man ngaa war ci sama ginnaaw nga yéeg sama ginnaaw. Samba daal di bootu ci ginnaaw sëriñ bi daal di yéeg ci ginnaawam sëriñ bi daal di koy digal ne ko bul xoole benn yoon lu dul dama la cee jox ndigal noonu am riir mu xumb daal di leen feeñu mel ni fi ñu nekk day naaw ànd ak riir bu xumb. Samba bi mu déggee riir googu nag bëgg dañ kumpa xamul lan la mu daal di xool benn bëtam bët bi daal di tuuru noonu lay fi naawee. ba sëriñ bi jox ko ndigal ne ko mën ngaa xool sàmba bi mu xëppee benn bët bu baax bi daal di gis ne ñoo ngi ci tefesu géej gi noonu la sàmba muccee ànd ak sëriñ bi ci bërëb boobu nga xam ne mooy wiir wiir ca Mayomba. génne nañ ci naar bi ñuy wax Ahmed Ibnu Azam bokk ci waa Daymaani ci téeréem bu mu bind tuddee ko Rihlatu Cheikhul Khadim moo ngi ciy nettali bi sëriñ bi di julli ci géej gi bi nga xamee ne yëpp nañ sëriñ bi ci bato bi ngir mu jugee Ndakaaru jëm fi nga xam ne mooy Conakry ci diggante boobu nee nañ waxtu tàkkusaan dafa dab sëriñ bi ci yoon bi tubaab bi nam ma fàttaloo sëriñ bi waxtu ndax xam nañ ci moom benn waxtu du ko faat sëriñ bi nee na du fay waxtu te du faat waxtu ba loolu taxoon na biiru ba ca ndar ak fépp fu mu mën a dem rek bu waxtu jotee dina ko julli ca na mu waree. bi waxtu tàkkusaan jotee sëriñ bi daal di jug ngir waajal waxtu wi fi mu demee di jàpp di waajal waxtu tàkkusaan tubaab bi ci seenu càncaay bëgg koo faat la waxtu wi tax nañu yebal benn madam boo xam ne dafa am sobe. madam bi saa bu sëriñ bi jàppoo ba yeggal day ñëw laal ko ngir toj njàppam waaye sëriñ bi saa ko madam bi laalee dafay yeesalaat njàpp bi daal di jàppuwaat noonu la madam bi jàppoo ak sëriñ bi saa bu sëriñ bi jàppoo ba noppi rek madame bi daal di ñëw daal di laal sëriñ bi waaye bi sëriñ bi njàppoo njàpp lu mujj di bañ madame bi laal ko mu daal di sànni der gi ci kaw géej gi ci kaw ndox mi la sànni der gi daldi di ne cëpp taxaw ci kaw der bi daal di kabaar julli der bi jublu penku waaye bi mu kabaaree di julli mbir moomu nekkoon mbir moo xam ne xel mënu ko woon daj ci àdduna tubaab yi yéemu lool mu nekkoon mbir mu yéeme ci lenn ci karaamay sëriñ bi feeñ foofa ca géej ga waaye dar bi jublu la ba noppi nag vitesse bi nga xam ne bato baa ngi koy daw dar bi di daw vitesse bu toll noonu ànd ak moom bi sëriñ bi jublu jullee ba sëlmal daal di lem si jaada bi yéegaat xaal bi mu yégee woon bi mu wàccee woon ci ndox mi ci xaal boobu la yéegaatee ci bato bi continuer liggéey bi nga xamne mom lay dem ngir liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam lolou moy xissa bi nga xamne mom lañu jele ci téré bu ñuy wax relatu cheikhul khadim te naat bu ñuy wax ahmad ibnu hasan bokku ci wa daymani moko bind serigne bi nak ci ma yomba di rut ñaari at yam fay nek nat bu nek ñëw na ci kawam waye lépp rek serigne bi ànd ak muñ ànd ak liggéey gi nga xamne mo ngi koy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam xew-xew bobu doxone diggante serigne bi ak sambalaw be ci wir wir ba serigne bi xettaliko ànd ak mom ci sijaada bi ba ñëw ci tefesu géej gi xew-xew boobu ci la sëriñ bi man bayt yi faman baax rii raw man li xurbati fali min ilahi rawdu fil kulli allani mu ne dañu may sànni ci géej gi ngir sànq ma waaye fépp fu ma mën a nekk sunu borom dana ma tàggatal lu nekk ci mbir mu nekk ba tey ci tefesu géej googu ci la sëriñ bi taxaw di wax ak géej gi nga xam ne mooy géeju Mayomba di waxanteeg moom naan yasxat bi kaw nii yax yaxfiru sanba wa kaw nii xadimal Moustapha Bahrama Yomba. mu ne ko na nga seere ne man jaamukatu yàlla buy jéggale bàkkaari laa waaye na nga seere ne man tamit jaam buy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di Moustapha yow géejug maa yomba. ak bayit ya ca topp yëpp noonu nag la sëriñ bi nekkee ci bërëb boobu nga xam ne mooy maa yomba ci diir boobu natt bu nekk ñu teg ko ko. bi ñu jéemee ba sonn pexe mën nañu teg ko sëriñ bi mënuñ ci moom dara commandant bi nekkoon maa yomba dafa yónnee ci kilifaam xamal ne ko ki nga ñu booleel day jéem nañ ci moom ba sonn waaye mel ni daal kii du nit pexe mu ne def nañ ko xamuñu nag ban xeetu nit la ba tax mënuñ ko dara léegi nag ñun amatuñu pexe léegi bàyyee nañ la mbiram nga lijjanti ko. kilifa commanda boobu dafa mujje woolu labbe bi nekkoon ci dëkk bi nga xam ne moo ëpp xam-xam ci labbe yi labbe bu am xam-xam la woon xam wàllu diine yépp labbe boobu nag la woolu dal di koy nettali mbirum sëriñ bi ak pexe yi ñu def ci moom yépp mënuñ ci dara ngir labbe bi jéem ci pexe noonu nag labbe bi ànd ak commanda bi ñu ñëw ci sëriñ bi bi ñu ñëwee. ba nar a jox sëriñ bi loxo sëriñ bi dafa gàntal daal di laaj ci koy mu ne ko waxal ma ne armée France bi lan lañ namm ci man bi ñu commandant bi daal di koy tontu ne ko sëriñ bi maanaam dañoo indi labbe bi ngir mu ñëw nattu la xool la bi mu waxee loolu bi ne ko bisimilah noonu nag labbe bi daal di dàq nit ña nekk ko ñu daal di dem moom kese mu fa ak bi ñaari waxtu di xool mbirum sëriñ bi bi mu noppee ne ma gis dafa jeex tak ci boromam leram ak leeri boromam dañoo jaxasoo lenn rek mooy tax ngeen mënal ko dara mooy faw ngeen mooy loo ko yàlla faw mu mooy boromam mooy yàlla ngir ngeen man ci moom dara te nag benn pexe képp laa gis ngir war ngir ngeen mën koo moyloo yàlla mooy da ngeen xool jigéen ju taaru jonge lool ngeen fexe ba boole ko moom bu moyee yàlla ci ndaw soosu rek su boobaa ne leen leer ne li ngeen bëgg ci moom ngeen ko am noonu nag ñu daal di xool soxna métier taaru na lool waaye li ñuy sàkku ci jigéen ji nga xam ne moom la ñu bëgg a booleeg sëriñ bi gis nañ ko ci ndaw soosu ci noonu nag ñu daal di koy dugal ci néeg bi sëriñ bi nekk daal di tëj néeg bi bàyyi leen ñoom ñaar ci biir néeg bi daal di dem waaye sëriñ bi bi mu siggee ba yem ci ndaw si daf ko wuccax xalima gi ndaw si daal di soppaleku nekk ab mbottu sëriñ bi jël lekkeet gi nekkoon ci néeg bi daal di koy këpp ndaw si continuer liggéey bi muy liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab diir soldaar yi daal di ci néeg bi bi ñu ñëwee fekkuñ fa kenn ñu laaj sëriñ bi ne ko ana ki fi nekkoon sëriñ bi tontuwu leen waaye bi ñu demee ba sonal sëriñ bi sëriñ bi ne leen li fi nekk ci boromu ruuma luy dund de lii rek laa fi gis muy mbott mi waaye bi mu waxee lii rek laa fi gis daal di di për ni këll bi daal di joxoñ mbott mi ci la ndaw si nekkaat yi nit daal di jug taxaw bi ñu laajee ndaw si ne ko waaw yow ana ci loo nekkoon mu ne leen man de bi ngeen ma fi dugalee laa gëj a xam ci sama bopp dara dama mel ni kuy nelaw bay door a loolu nag di lenn ci li feeñoon ci bërëb boobu nga xam ne mooy maa yomb waaye ànd ak loolu yëpp nag teewul tubaab yi ñoom ña ngay woy di nattu sëriñ bi lépp loo xalaat rek ñoo koy wéy di def sëriñ bi tàyyiwuñu benn yoon seen pexe yëpp def nañ ko bëri nañ ko gaynde gu ñu xiifal boole ko ay nit gaynde gi xéwloo nit yooyu ndax jàmbaare gu gaynde gi jàmbaare ak it raglu gu mu raglu ba kenn ñemewu ko waaye sëriñ bi gaynde gi dafa nooy ci moom ba mel ni ab taalibeem xalaat boo xalaat rek def nañ ko sëriñ bi ngi natt ko waaye mënuñ ci moom dara. sëriñ bi moo ngi nettali ne maa yomb googu am na benn waxambaane bu ko fa fekk boo xam ne bu kàccoore la moo ngi yor ak jaas ñëw ba ci bopp sëriñ bi di wundeel jaas yi gi bëgg ko bocc sëriñ bi naan ko yow la diw jaar ci turu sëriñ bi naan ko maytu ndax man kat sama maam moo daan rey waliw yi te damaa ñëw ngir fàtt si la. bi mu waxee loolu sëriñ bi sëriñ bi ne naa ma joxoon ko sama xalimba gi. ne ko doo sa maam mi daan rey walli wi te man duma walli wi sa sa maam daan rey nee na bi ko joxee ngee xalima gi gëdd ko dafa daal di daw mel ni ak kënu laa ko joxoñ ca maayomb googu sëriñ bi wor na fa ak koor ba mu jeex ca korite ga sëriñ bi daal di wàcc wàccaayu kuy korite maanaam kuy dundool sunna daal di sangu waaj dog kooram sol yéreem ñëw ca pénc ma ngir julli julli korite ngir dundal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye foofu ca pénc ma sëriñ bi xool na gisul kenn ca noonu Sering bi daal di wàcc ngir kabaar ngir julli waaye nee na bay waaj kabar ci la ñaari xale yu jigéen yoo xam ne ay waxambaane lañ ñoo taxaw ci sama wet su ma kabaree wax allahu akbar ñu di ma ree su ma sujjootee ñu di ma ree su ma rukkooxee ñu di ma ree noonu la ñu ànd ak sëriñ bi di ko ba ni sëriñ bi ba bi dafa daal di xutba daal di boromam ci suuf ne ko yow sunu borom woor sa koor gi ni nga ma ba mu jeex maa ngi nii bëgg a génn muum koor te awma ko te su ma ko amoon itam du ma am ku ma ko jox ci la jëlee aaya alxuraan bi daldi di jël araf yi woy ko def ko muurum koor te aaya bi mooy bismillahi irrahmani irrahim qad aflaha man tasakka sadaqa allahu alazim sëriñ bi nag tukki boobu ñu ko yóbbu woon am na fa lu toll juróom-ñetti at yu manqué tuuti njaboot ga mu bàyyi woon ginnaaw diiru tukki bi ña nga jaaxle lool ànd ak xol bu naqari waaye teewul lépp ñoo ngi ànd ak ndigal yi leen sëriñ bi digaloon ñu nekk ca loolu wéy ca ñay jàngale ña ngay jàngale ña nekk ca wàllu yar gi itam ña ngay yar ña nga xam ne ñooy jàngale xam-xam itam ña ngay jàngale xam-xam sëriñ bi nag lu jiitu muy départ du jógee foofu nga xam ne mooy dëkk boobu di Jolof ma nga dénkoon njaboot gi ki nga xam ne mooy borom daaru di rakkam di maam Cerno moom la dénkoon njaboot gi lu jiitu muy dem digal ko mu sanc dëkk ci dëkk yi nga xam ne ñoo wër Touba mooy dëkk yi sëriñ bi sancoon wax nañ ne sëriñ bi jamono yi muy nekk Ndar bind na bataaxal borom daaru dénk ko njaboot gi ba noppi sant ko ne ko na nekk dëkk boobu nga xam ne moom mooy Mbàkke Baari dafa toog lu mën a àggalee nawet bi ba nawet bi jeex mu dem sanc ci dëkk yi nga xam ne moom la sëriñ bi sancoon ci bawal waaye sëriñ bi jamono yooyu nga xam ne moo ngi waaj ngir dem boobu moo ngi nekk ci mujjug nawet gi ci atum jay sasin muy 1313 borom daaru nag bi mu toggee ci dëkk boobu nga xam ne mooy Jolof ca Mbàkke Baari daal di fay toog àggalee fa lu mën a àggalee nawet bi wax nañ na sax nawet boobu ceddo yi dañoo yebal ay nit ñu ñëw ruur seen tool yi noonu la borom daaru tuxoo dem sanc fa nga xam ne mooy Mbàkke Bawol Mbàkke Bawol googu nekk nañ fa ab diir di liggéey ndénkaan yi leen sëñ bi dénkoon itam ñu nekk ca ndénkaan yooyu murid yëpp takkatoo topp ci ginnaaw borom daaru di liggéey liggéey bu rafet borom daaru yor njabootu sëriñ bi yorin wu rafet diir boobu ñuy nekk Mbàkke Bawol nag dégg nañ fa benn xibaar bu yéeme muy benn rumeur boo xam ne dañoo wax ne sëriñ bi faatu na ba xel yëpp jaxasoo ñëpp jana xew kenn xamatul foo jëm murit yëpp jaaxle jamono boobu liggéey bi taxaw na ab diir kenn defatul dara waaye ci ab diir rek la am information bu wér ne sëriñ bi moo ngi ci jàmm dara jotu ko noonu sëriñ Mandoumbe taxaw taxaw gu am solo ci soññ ñi nga xam ne mooy murit yi ngir ñu topp ci ginnaaw borom daaru mu soññ leen ngir ñu ànd ak liggéey bi nga xam ne moom leen sëriñ bi bàyyi woon ñu sàmm ko dara bañ ca yàqu sëriñ Mandoumbe taxaw ci di leen di dajale murit yi ba ñëpp dajaloowaat taxawaat ci ginnaaw borom daaru te moom sëñ Mandumbe moomu moo jiite woon lim leen doon soññ moom ma ca jiitu woon ba dajalewaat murit yi ba lépp jaaraat yoon ñëpp toppaat ci ginnaaw maam Cerno borom daaru moom sëriñ Mandumbe noonu la doxalee ci jamono boobu ba liggéey bépp continué waat di dox lépp jaar yoon. Mbàkke Bawol googu borom fa lu at waaye natt bu métti ñëw dal seen kaw muy benn tawat goo xam ne dafa ñëw dal ci kaw murit yi ak njaboot gi muy feebar daanaka xaw na jeexal lenn ci murit yi ba kenn ci doomu sëriñ bi ci la noppaloo muy sëriñ Mouhamadou Yaddaali ak juróom-ñaar ci taalibey murit yi foofu la ñu noppaloo ci Mbàkke Bawol googu noonu la borom daaru tuxoo daal di dem ci dëkk boo xam ne moo ngi nekk ci diggante Yanka ak Mbàkke Dimb daal di fay sànci ak njaboot gi daal di fay nekk ci atum 1319 ku ñuy wax Abdoulaye Ndour daal dinay ñëw ci borom daaru andi benn bataaxal bu jógee ci bi sëriñ bi di ko wax ci bataaxal bi ngir mu sànc daaru Marnaan noonu la borom daaru sàncee fi nga xam ne moom mooy daaru Marnaan sanc ab dëkk tuddee ko daaru mën naan dal di fay nekk ak njaboot gi daaru mën naan googu fa la borom daaru nekk ba ni sëñ bi ñibbisee ba fekk ko fa borom daaru taxaw taxawaay bu rafet ci sëriñ bi ak njabootam ndax diirub sëriñ bi fàddoo woon ko ginnaaw dem ca tukki boobu borom daaru saxalal na sëriñ bi ab kaamil boo xam ne bis bu set dañ koy jàng muy kaamil alxuraan ak junney salaatu mu najji naa boo xam ne dañ koy def ngir ñaanal sëriñ bi mu ñibbis ci jàmm wax nañ ne kaamil boobu sax ba fi bi nekk daan nañ ko jàng waaye junne salaatu mën na jinaa boobu borom daaru moo ko saxalal sëriñ bi ngir xër gu ma xër ci moom ak bëgg gu ma bëgg sëriñ bi dellusiwaat ci dëkk bi ci jàmm ak salaam jamono yooyu itam ku nekk ci magi murit yaa ngi def pexe ngir sëriñ bi ñibbisiwaat ci jàmm jamono yooyu sëriñ Mbacke Bousso moo ngi def pexe bu nekk ngir sëriñ bi dellusiwaat ci jàmm ba noonu la sëriñ bu Bousso tuxoo daal di dem ci dëkk bu ñuy wax sërif di def pexe bu nekk ngir sëriñ bi ñibbisi sëriñ Mbacke bu daal di bind bataaxal Cheikh Sidiya te Cheikh Sidiya boobu kilifa gu mag la woon mu bind ko leetal xamal ko ne ko sëriñ bi dañ koo jëlee fi nga xam ne mooy jolof yëbbu ko damay dem fukki nit rek la àndal ba mu demee yëbbu nañ ko ndar ab diir ginnaaw bi dañu dégg ñu ne yëbbu nañ ko feneen yëbbu nañ ko ndakaaru ginnaaw bi dañu dégg ñu ne yëbbu nañ ko feneen sànq nañ ko taxamuñu fan lañ ko yëbbu may ñaan nag nga bind bataaxal ki nga xam ne mooy kilifa gouverneur yi ngir ñu bàyyi sëriñ bi ndax sëriñ bi kat deful dara dañ koo tuumaal noonu Cheikh Sidiya daal di bind bataaxal jox ko ki nga xam ne mooy gouverneur ne ko sia Amadou Bamba moomu nga jàpp kat na nga ko bàyyi ndax ci sama yoon la nekk ndax suufi yi la ñoo bokk yoon bu ñuy jaar te itamit nit ku baax la te li ngeen njort ci moom nekkul ci moom na ngeen ko bàyyi bu jaree sax ngeen andi ko ci man wala ngeen delloo ko ci njabootam noonu gouverneur bi daal di gàntal Cheikh Sidiya pexe yooyu sëriñ Mbacke Bousso def na ak ne itam nettaliwuñ ko. ci nonu magi murid yëpp tasaaroo ko ne di def pexe ngir sëriñ bi ñibbisiwaat ci noonu sëriñ daam Abdourahmane Lo moom ma nga nekkoon ca ndaam ca dëkk ba ko sëriñ bi bàyyi woon waaye nekkin wu rafet la fa nekkee woon ndax la ko sëriñ bi santoon muy alxuraan taxaw na ca temm def ca lam man ci jàppale sëriñ bi ci njaboot gi ndax boobu njabootu sëriñ bi yëpp ci loxoom la ñu nekkoon daan fa jàngee moom sëriñ daam njànginu sell wu rafet lu ëpp ci murit yi tamit seeni doom di xëpp ci kawam nekk mbooloo mu takk mu yor leen di leen jàngal moom sëriñ daam Abdourahmane Lo noonu la nekkee woon ci bërëb boobu nga xam ne ndaam ci diw sëriñ bi fàddoo ngir taxawal li nga xam ne mooy alxuraan ji ba dara bañ a faat ginnaaw sëriñ bi boole ko ay ñaan yoo xam ne da koy def ngir ñaanal sëriñ bi mu dellu siwaat ci jàmm ak salaam naka noonu sëriñ Omar Bousso bu sëriñ Mbusoobe moom itam dem ca dëkk bu ñuy wax Mbusoobe ca penku noonu mag ñett tasaaroo ku nekk di wut pexe boo def ngir sëriñ bi ñibbisiwaat ci jàmm loolu waraloon dëkk boobu nga xam ne mooy Touba dal di nekk dëkk bu wéer nga xam ne kenn nekkatu fa ben jëmm moo fa daan ñëw ci murit yi daan fa nettoyé di ko bale di bale kër ga di ko yeesalaat nga xam ne kër gi dafa mel ni lu gent lu ñu gàddaay kenn nekkatu fa woon ndax boobu murit yi ku ne yaa wut pexe boo def ngir sëriñ bi ñibbi siwaat ci jàmm maam Cerno itam ma nga dëkk di daaru marnaan nekk fa ak njabootu sëriñ bi noonu la xew-xew boobu amee woon ci jamono boobu jamono yooyu Cheikh Ibrahima Fall moom ma nga nekk ca Ndar di dox ay jéego yu métti ngir ñu sëriñ bi jamono yooyu Cheikh Ibra mu ngi jaabante ci diggante tubaab yi ak gouverneur yi ak ñi nga xam ne ñooy commandant yi ku nekk mu waxtaan ak yow bind bataaxal ngir ñu bàyyi sëriñ bi mu ñibbisi ci jàmm jamono yooyu Cheikh Ibra moom noppaluwul benn yoon xelam ak xolam yépp moo ngi ci sëriñ bi ci ñi nga xam ne ñoo ko yëpp woon muy dem ci ñoom ngir ñu bàyyi sëriñ bi mu mën a ñibbisiwaat ci jàmm. waaye ndar googu Cheikh Ibra sonn na fa lool ndax mbooloo mu bari ñoo ko topp ñu bari nekk ay macc soob jeex tàkk ci sëriñ bi ba dara te ndar googu boobu civilisation bu am solo moo fa nekkoon ci ñi nga xam ne ñooy doomi ndar ya ndax lu ñu xam mooy kuy sol yëre yu set di silwisee di dox doxinu tubaab te boobu Cheikh Ibra dafa jeex takk ci sëriñ bi ba talu la dox wenn doxin wurul doxinu taalibe taxoon na itam ñu bëri ci dëkk ba daan ko xeex sonaloon ko lool waaye Cheikh Ibra moom jéegoom yépp mooy suuxat yoonu sëriñ bi ak itamit di dimbale ñi nga xam ne ñooy néew ji doole ni ko sëriñ bi daan defee moom Cheikh Ibra wax nañ ne joxe gi sëriñ bi daan joxe ku ñëw mu faj sa aajo ñi sëriñ bi daan jox bi sëriñ bi demee ci géej gi moom Cheikh Ibra moo leen daan jox di dajale ci ñaqam lu mu am joxe ko ngir jëmi sëriñ bi boole ci di xar tànku tubayam ngir tubaab yi bàyyi sëriñ bi mu ñibbisiwaat ci jàmm. wax nañ ne Cheikh Ibra coono yooyu mu daan daj ca Ndar ak it dajale googu mu daan dajale murit yi ak liggéeyal boobu mu doon liggéeyal sëriñ bi ci bërëb boobu nga xam ne mooy Ndar ak intervention yooyu mu doon def digganteem ak tubaab yi ci la gouvernement France xamee ne nag sëriñ bi deful dara lu ñu koy waxal yépp ay tuuma la ak ay rambaaj ak ay jaxase ci noonu la gouvernement France sukkandiku ci loolu ba lijjante mbirum sëriñ bi ba ginnaaw bi nag ci la ñu bàyyee sëriñ bi mu ñibbisi ci atum 1320 ci réew mii nga xam ne mooy Sénégal. sëriñ moot loo Dagana itam moom itam def na ay pexeem ba dem fekk ci sëriñ bi ci bërëb boobu nga xam ne mooy Mayomba fa mu nekkoon seeti ko ci magi murit yi mooy ka fa njëkk a dem seeti ji sëriñ bi ba mu fa demee bay wàññeeku ci la ko sëriñ bi waxee ne ko boo demee nang ma àndil ki nga xam ne mooy sama rakk di maam Cheikh Anta borom gaawaan noonu la maam Cheikh Anta borom gaawaan tamit ànd ak sëriñ Modou Lo Dagana dem ca dëkk boobu nga xam ne mooy Mayomba ca Gabon fekk fa sëriñ bi kon ñoom ñaar ñëpp fekk nañ sëriñ bi foofu ca Gabon ca Mayomba. taxawaay boobu la magi murit yi amoon ci bi sëriñ bi demee ba ni mu jubisee mu mel ni seen taxawaay ak seen pas-pas dafa gënoon a dolleeku waaye dara wàññeeku ci ba ni sëriñ bi ñibbisee ci dëkk bi sëriñ bi nag moo ngi ñibbisi senegal ci atum kasasin samdi ñaar fukki fan ci weeru Chaban tombeek novembre 1902 ba mu ñëwee moo ngi wàcc ndakaaru ci noonu la jógee ndakaaru dem ndar ndar am na fa fukki fan ak juróom ba ci bis bi njëkk ci weeru koor mu tombeek talaata mu jógee ndar dem Louga Louga googu moo ngi wàcc ci rakkam bu ñuy wax sëriñ Cheikh Coro am na fa lu tolloog ñeenti fan talaata àllarba alxames ajjuma ci guddi la fa sëriñ bi jógee daal di rañaan dem fa nga xam ne mooy sànn ci taalibeem bu ñuy wax sëriñ siloloo foofu la mottalee li des ci koor gi foofu la sëriñ bi noppaloo daal di fay woor mottali fa li des ci koor gi ci bërëb boobu nga xam ne mooy sànn ci taalibeem boobu di sëriñ siroloo bu sànn sëriñ bi ba mu nekkee ca dëkk boobu di sànn ba ñu woor ba korite mu tombeek alxames fa la nekk alxames ajjuma ba samedi la fa jógee gontu dem ci kër taalibeem bu ñuy wax góor mag jaw fa sëriñ bi jógee dem ca dëkk bu ñuy wax Makka Samba Babou daal di fay fanaan ca Makka Samba Babou googu fa la sëriñ bi jugee dem kër baayam bu ndaw ba ñuy wax sëriñ Mbàkke Kajoor ba mu fa jugee la dem ci kër ma Xari Diop ba mu fa jugee la dem ci kër ku ñuy wax Maxtaar ba mu fa jugee nag la dem ci dëkk bu ñuy wax ñaxal ci Maxtaar Marème la ba mu fa amee ay fan nag ca la demee ca kër Maxtaar Samba Diop ca kokki guy sëriñ ba yendu na fa waaye fanaanu fa nag noonu la fa jógee ci àllarba ga daal di dem Daaru Salaam ci rakkam maam Cheikh Anta borom gaawaan ba mu demee Daaru Salaam maam Cheikh Anta borom gaawaan daal di koy taral teraanga ju rëy sax ndax sëriñ bi am na fa fukki fan yoo xam ne bis bu set maam dafay rey fukki nag fukki nag yooyu su matul maam Cheikh mottalee ko ay gileem mu nekk teraanga joo xam ne ànd na xër ak lépp loo xalaat ca teraanga rek maam Cheikh Anta defal na ko sëriñ bi ci fukki fan yooyu sëriñ bi am foofa ca Daaru Salaam. jamono bi sëriñ bi nekk Daaru Salaam nag ña ngay waajal ay nekkuwaay yu jekk ca Daaru Marnaan ngir bu sëriñ bi jógee daaru salaam mën a dem daaru marnaan ca mam Cerno mi nga xam ne moom la dénkoon njaboot gi ngir mu ñibbisiwaat nag ci ak njabootam mu nekk ndam lu rëy ci dënd bi di Afrique der bu ñuul nekk ndam lu rëy ci li nga xam ne mooy lislaam mu nekk ndam loo xam ne xel mënu koo daj tax na ñëpp di ndokkeel sëriñ bi ci ndam li mu am muy dem gi tubaab yi dem yëbbu ko jéem ci moom ba sonn mënuñ ci moom dara ñu ñibbisi indiwaat ko mu ñibbisiwaat ci jàmm nekkoon loo xam ne xel mënu koo daj mu nekkoon ndam lu rëy taxoon na kilifa yi ne ci réew mi ak ñi nekk ci bitim réew Mauritanie naar yi ñëpp di bind sëriñ bi bataaxal ñii di bind ay woy ci moom ñii di ko tagg ngir ndokkeel ko Cheikh Sadibou daal nay bind bataaxal bu jëm ci sëriñ bi ngir ndokkeel ko te bataaxal bi moo nekk nii mu ne maa ngi sant yàlla ci tasaare gi mu tasaare lislaam ci mbégte mi nga xam ne tasaaroo na fépp ci àdduna di sant yàlla ci ndam lu rëy li nga xam ne lislaam am na ko te yàlla suñu borom jaarale ko ci sa loxo wurus wi nga xam ne yàlla génne na ko ci géej gi mu nekk wurus wi gën taaru mu takk ko ci loosu lislaam te wurus wi moom mooy sa jëmm ji te lislaam mooy lislaam ji nga xam ne mooy diine yontu bi sallallahu alayhi wa takkal nañ ko wurus mooy sa jëmm ji nga xam ne am na ndam bi dolleeku ci biir lislaam mooy wurus wi nga xam ne takkal nañ ko lislaam noonu itam Cheikh Saadi bu tagg sëriñ bi wax ci moom wax yu am solo wax yoo xam ne xel mënu koo daj ba noppi xamal ko ne ko lan rek moo ma métti mooy sore gi ñu sore waaye na na nga xam ne ndam li nga xam ne am nga ko tasaaroo nag fépp ci àdduna na nga xam ne sa ndam lii ndam la loo xam ne ndamal lislaam la te it ndam lu dul fay ba mukk la daal di koy tagg ñaanal sëriñ bi ba noppi tàggatoo moom tàggatoo bu rafet loolu mooy bataaxal bi nga xam ne moom la Cheikh Sadibou bindoon sëriñ tubaa ak ñenn ci wàll yu newoon ci réew mi ku ci nekk di bind bataaxal ku ci nekk di wéy ku ci nekk di tagg sëriñ bi di wax ci moom wax yu am solo ndax booba sëriñ bi moo xewoon ci àdduna tubaab yi yéemu ci moom ñëpp yëmu ci moom. mu nekkoon xew-xew boo xam ne àdduna yëpp ñoo ko doon waxtaanee xew-xew bu siiw loolu lislaam gépp di ko ndamoo jullit yëpp di ko ndamoo. waaye sëriñ bi moo ngi mel ni koo xam ne deful dara. mel ni nag koo xam ne da ngay door a tàmbali. li ndam li rey rëy rey sëriñ bi dafa mel ni koo xam ne dafay door a tàmbaliwaat liggéey bi. ndax moom dara doyul ci moom ci lu baax lépp lu def ci lu baax rek xeeb na ko ndax gu mu xëroon ngir bëgg liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca na mu waree noonu itam ñu bari ci wàllu yi ak nitu yàlla yi tagg nañ ko ci jamono boobu di ko wax ne ko bi ngay dem wurus nga woo xam ne tagguñu ko waaye bi nga demee ci géej gi ba ñibbisi da ngaa nekk wurus woo xam ne da ngay mel xat ñëpp di gis sa ak sa leeraay am na ñu ko wax ne ko bi ngay dem de da ngaa meloon ne ab weer waaye bi nga ñëwee da mel ni jant boo xam ne dangay ngay tiim ñëpp sa leeraay gi fees àdduna bi kàpp ba ñëpp di ko gis ba ku nekk fa nga nekk mu neex la mu naqari la leeraay gi dana agsi ci yow. ñu ne ko bi ngay dem diina ji dafa làppoon ba noppi tumuraanke waaye bi nga demee ci géej gi ba ñëw la diine ji yëkkatikuwaat di siikarewu di tiitaru di bàkku ci kaw lépp lu dul moom ndax siggil nga diina ci ndam li nga xam ne am na ko diina jaa ngi bàkku ci ndam li nga xam ne am na ko. dem gi sëriñ bi dem ci géej gi tubaab yi jéem ci moom ba sonn mënuñ ci dara ñu andiwaat ko. loolu itam ba tey moo tax sëriñ bay Jaxate daal di koy tagg tagg jure yi daal di koy wax ne ko ma gàdd bu wér man bëj géwal sama ndënd mi te kenn nag sëriñ Touba mi xëy boole ñëpp daan ba fóoree ki kaan ak ñëpp ne jàng fi jëriñ mu seexal ku jàngul aw araf ñu ne moo fi daan ba ñooñ yàlla ne ñun buntu yàlla yee ñoo ko yor mu faf jaar fu kenn foogul ñu bokk ne moo fi daan ba buuri wolof ne li ñu yor ku ko bañ du wéy mu jug romb leen ak seeni yëf ñu ne moo fi daan ba buuri tubaab it ne ñu masuwaa ji ñoo ci des mu yëmm ne gar fit yëpp dem ñu ne moo fi daan mu xëy déglu déggul fenn kuy baj bajee ka bañ mu ñibbi këram ndaanaanoo ngoogu lu yàgg daan jër jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba fii nag la ñuy yemale histoire bi mu des lenn ci mu jug sëriñ bi ba ni mu demee ci boroomam tabaaraka wa taala شكرا بخدمة لخير الورى نعم المخفر ما كتبت وكلي رخى الصنب وسرك وخبل استرى ربي لزبته ترك كلامي ونيتي وفهلي توجهت إلى من كفاني سوى والضر وسكر كفاني أبي سمان من جملة الهداية